ay waxtu mu teg ko ci loosu jullit mooy li ëpp doole ci l'islam sharia bi ginnaaw baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ju sallallahu alayhi wasallam julli moo ci ëpp doole julli moo ci ëpp doole munuñu par quel que soit bi nga ne ne la doo julli loolu moo tax même ci xare yi toolu xare yi toolu xare yi sax da ngay julli mais da ngay julli même bu dee dangay xalaat di julli même bu dool doo jublu xibla la ngay julli kon a ah, amul benn circonstance bu ñu la mën a atténuer ne la waaw journée bi yëpp day jàll noonu rek doo julli loolu moo amul circonstance bu ko mën a atténuer ku ko def yow def nga li ngay def mais yàlla moom li mu wax mooy julli moom dañ ko war a def obligatoirement ci waxtu yi hmm. waxtu yi nag yaatu nañ comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee waxati ko waxati ko plusieurs fois waxtu yi yaatu nañ

ba jant bi di so ba coucher di soleil foofu suuf sûrement war nga faa mën a am wax dëgg yàlla cinq a dix minutes yoo mën a boole sa tisbaar ak sa tàkkusaan niki noonu timis ak gée bi di ko dalee couche eh, coucher du soleil ba fajar gi jot di nga mën a julli ñaar yooyu fajar gi nag moom moom ala kulli xaalin bu xësee ba xar war nga koo def obligatoirement balaa jant bi jóg loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam euh, munuñu maanaam

déedéet parce que interaction bi la dama laa jox lii nga war maa jox lii ci saa si noonu lay marché allahu alam waaw kii day laaj pour nga wax ko tuuti ci histoire xeer bu ñuul boobu nekk ci kaaba bi alxajarul aswadu moom lañu moom lañu wax ci tubaab la pierre noire xajarul aswad حجر الأسود مموي سل أوبجي بيغا خبنتين مام آدم عليه الصلاة والسلام موي سل أوبجي بيغا خبنتين مام آدم عليه الصلاة والسلام بيمو جوغي أجنا موم لو واتش والا تي حجر موي بيير نوار بي موم لاي ا موتا ابن عباس رضي الله عنه Euh, su ma juumul sax da ko jël ci yonent ti sallallahu alayhi wasallam ala kulli haal mi ngi ci tafsiru imam at-Tabari rahimahullah mu ne euh, pierre noire boobu bi mu ñëwee moom la wàcce waale Makka nag la mësa ne dafa weexoon tàll avant mais bàkkaaru nit ñi moo tax muy ñuul di ñuul di ñuul di ñuul ba mel noonu ba ñuul ku ku noonu mu ñuulee maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi mu tabaxee kaaba gi nga xamante ne saa boroom dañu ko mu yëkkati parce que kaaba gi ki ko njëkk tabax en réalité mooy maam Adama alayhi salaatu wassalaam maam Ibrahima mais dafa raafoon maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moo ñëw yëkkati waat ko moo tax alquran daf ne wa iz yarfa'u Ibrahima al-qawaa'ida min al maanaam fo qawaa'id mooy fondement yi moom la yëkkati waat bi ko yëkkatee moom ak Ismaïla maam Ismaïl alayhi salaam moo jàppale mom dako tabaxone djel pierre noir bi tek ko ci li ñuy wax ruknul yamani manam euh angle bi nga xamantene mom lañu tuddé ruknul yamani ci angle bobu mom lañu djel tek fa xeer bobu te xeer bobu nonu mom la yenenbi sallallahu alayhi wa al hajarul aswad yaminullah fi fil ardi fil ardi <laughs> pierre noire boobu moom mooy ndey jooru yàlla ci kaw suuf wax jooju yenent bi sallallahu alayhi wa wax nag bokk na ci liy tegtale ne lépp lu ñu tudd ci yàlla te mu nekk loo xamante ne membre la ci corps membre la ci corps wala mu nekk mouvement kenn du ko firee baat bi muy tekki ci ñun nit abadan parce que ku nekk xam ne ne yàlla du jëmm ñu naan loxo day bi mooy xeer woowu loolu lu waay dof dof dof war na xam loolu donc xeer boobu nga xam ne moom lañuy ñu wax mooy mooy alxajarul aswad barke bi nga xam ne maanaam symboliser gi mu symboliser barke parce que loxo nday day tekki day symboliser barke day symboliser doole kattan maanaam li ci yàlla def ci secret ak doo ak kat ak barke loolu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon exprimer bi mu ne mooy ndeyjooru yàlla ci kaw suuf am na secret bu ci nekk boo xamante ne lenn ci nit yàlla yi sama borom xamal na leen ko subhaanahu wa ta'ala waaw ah. d'ailleurs nit yàlla yooyu bokk na ci seen seeni mbir mooy ku fóon seen loxo day mel ni fóon nga fi pierre noire bi waaw <laughs> donc euh, kon pierre noire boobu noonu bi moom euh, euh, bi bi bi bi bi kaaba gi parce que kaaba gi bi ñu ñëwee ni dañ koy tabaxaat parce que dañ ni benn moment bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee 35 ans ci la kaaba gi tabax gi def matat ci la kaaba gi matat parce que avant dañ ko wa quraish ça a pris des années su djumul ça a pris 12 ans wala 10 ans biñu ñoy dañ ñew kaaba gi dafa demone ba euh, màggat daal ñu bëgg ko tabaxat ñu ne lañ ko tek nañ ko tap mu ñu ko yëkiti wat mais buñ ko yëkiti dañ koy tabaxat mais duñ ci def. lu dul alal ju dagan waa Quraysh xanaa ay yéefar la ñu woon mais dañ ne duñ ci def par exemple bu dee nit ki day jaay eh, eh, day day day jaay boppam duñ ko ci def alal jooju bu nit ki eh, sàngara lay dundee wala muy muy muy woyaka fecc kuy woyaka fecc di tëgg kooku alal jooju duñ ko def ci suñu ci kaaba gi alal di maanaam lépp loo xamante ne baaxul rek ñoom ñu ne alal bu dee njabarkat la ñu ne déedéet alal jooju duñ ko ci def comme ñoom nag riche ñu woon. donc ça a pris des années pour dajale alal ji dëgg-dëgg pour mën a tabax affaire bi pour mën ko defar bi ñu demee ñu woo yoon ni benn waay bu tudd baaquum am ñu ne baaquum mooy euh, euh, baaquum bi laami aw bi muy mi naka la ko wasmul lazi qad naka la ko wax euh, sëriñ ci kii bi ju voilà jàppatuma exactement <laughs> voilà ala kulli xaalis noonu la tudd bi ñu ñëwee war ko in defar mujj gi sax mataluñ kaaba gi en fait parce que kaaba gi en niñ ko tabaxee affaire bi amul woon maanaam ñaari rukn yi maanaam parce que comme comme kaaba ga la nii mais ñaari côté yi dañ jël ruknul yamaan yi mooy fii xajarul aswad di ne ak bi sës ci moom bi nekk ci ndey jooram yooyu ñaar mënoon nañoo tabax kaaba gi ba mu mel noonu ñu yóbbu ko biñ ko yóbbee mais fi ci dess fi ci dess mënuñ ko fa yeggale ndax lan alal ju matul won alal ju matul won ñu tabaxé ko ñu mu nekké ñu tay motax tabaxuñ ko ala qawaa'id Ibrahim motax ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullah don wax naan nit borom xam-xam leg. leg day bayyi benn affaire parce que su ko defé day indi parce que su ko defé nit ñi duñ comprendre motax mu bayiko pourtant haramul pour pourtant lu baax la mais nit ñi yéggaguñ seen niveau yéggagul fu muy mën a waxee mbaa muy def yenn yi xadis bii la ci indi mooy xadis Aysa bi radiyallahu anha yenn saa salaam ne sa gaa yi de yow yow sa sa mbokk yi bu dul woon ne li ñuy doog a jóge ci kéefir konontoon dinaa tabax kaaba gi ci xawaayu Ibrahim dinaa ko tabaxaat dama koy toj defaraat ko comme mais bu ma ko defee la ñuy wax voilà mi ngi nii ndekete li taxoon ñu kii yëpp tur la doon wut han motax mu beggone ni duggu ci dinem ji legui tojat na kaaba gi nga xamne suñu maam fi dañ ko defaron han na nga xam nga yoy voilà lool la ci doon bañ mais sinon mu ne kaaba gi ñaari buntu la amoon bu nit ñi di dugg di ak buñu jenni ñaari buntu la mais legui benn buntu rek la am aswad bobu nak fiñ ko do def biñu nit ñi gars dañu amul problème ana kan mo koy def ana kan mo koy dilat tegaat ko fi mu nekkoon dañu amul problème

boobu mi ngi am 35 ans sallallahu alayhi wa sallam yéen tolo ak boobu mu ñëw ñu ne mu ne leen ni ñuy def moy dañuy jël dañuy jël darab darab bi ñu teg ko ñu jël xeer bi tek ci kawam. comme comme kenn kenn ku ne parce que kenn ko ne da doon wax ne man maa koy def kii naan suñu kilifa yi ñoo ko fi def tribu bu ne bëgg a wax ne ñoom ñoo ko cay teg kenn ku ne naan man kenn gënumaa yey ci dëkk bi wa maa ko <laughs> voilà léegi moom wu ne leen tribu bu ne da ngeen di jël kenn ci moom ci ñoom ñu teg ko ci kaw mbalaat mi kenn ku ne jàpp ci benn cat tribu bu ne après nag bu ko defee man ma teg ko ci waaw kenn ku ne ñoom ñëpp ñu jàpp kenn ku ne téye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yeggale ko nag fu mu war a nekk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu daal ci gàttal mën nañ ko wax ci wàllu tiennaa bi wallahu taala alam nabina Muhammad waaw kii atte kii jàpp benn benn waaw benn benn waaw ndax daganam bi waaw waaw ñëw na ci moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ci buntu ba kitaabul wudu kitaabul wudu mooy téere njàpp mu wax ci ne ah al wudu maratan maratan daal di indi xadis bi beneen al wudu marratayni marratayni indi xadis bi xadis Abdullah ibn Zayd la radiyallahu anhu maanaam ne yenn saa salaama jàpp na benn yoon benn yoon jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñett ñett waaw yooyu yëpp yent bi sallallahu def na ko loolu moo tax na l'essentiel bi rek mooy na mat na njàpp cëri mbaat njàpp yi ah, mat wallahu taala alam sallallahu ala nabina dama doon leerlu pour euh, ci bayaxa hmm. euh, comme commerce non bay baya waaw comme kii daal prêter allégeance waaw comme yàlla tuddee ci alxuraan waaw ak xadis boobu ndax wér na ban euh, bi yonente bi di wax ku dee ta kii woo waaw xadis boobu wér na tamit ak jamono ji nan lañ ko mën a déggee daal <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man maata bi ghayri bay'atin wala bi bi ghayri bay'ati ma'a imaamin faqad maata ala shu'bin min shu'abil jahiliyya aw kama qaala sallallahu alayhi képp koo xamante ne danga ngaa génn àdduna te jaayantewuloo ak imaam maanaam jaayantewuloo ak kenn mu ne na xam ne dee ci benn ci branche yi maanaam jahiliya mooy ceddo wala ignorance waaw maanaam ak riir ak sànkute kooku euh, dëgg la mooy lan mooy bu ñu sampee kilifteef nit ñëpp dañoo war a jaayante ak ñoom ak moom di julli ci ginnaawam su nekkee imam ak nu mënti mel di ak ci ginnaawam ak nu mu mënti mel di maanaam bu bu nekkee imam diriger benn armée Ne gaye, nyo len khek si, nyo khek andan moun, menm boudè sa yi sa yi la. Manam, mwen, boun yon sampe imam. Manam, dan le sans, imam mwen prezident. Mit ni, denyon nek dan l'obligasyon ki top pou ko, ak deg goul ko. Menm boudè dalen di togn, menm boudè dalen nangosyen alam, menm boudè dalen di dourou. fu saa yu xëyee nangu seen fekk def rond nangu seen alal duma leen sax dañ ko war a déggal topp ko waaw loolu nag bi mu deñee loolu bi mu deñee nga xamante ne nit diine yi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk diine yi ak nit ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk pouvoir temporel bi bi ñu nit ñi demee ba dégg déggalatuñ leen wormaalatu leen

ci la loolu ñenn ñoo ko des maanaam kenn ku ñëwee réew ma nga ne bu dee réew ma jullit lañ wala majorité bi jullit lañ bu ñu falee nit xattaa sax réewu yéeféer yi fekk jullit tamit ñuy ñu ngi jullit ah bu ñu xësee bu ñuy ñaan bu ñuy def carte euh, kii wote euh, élection kenn ku ne na nga fal ki nga bëgg a fal ki nga bëgg mu falu ak sa toute sincérité ëllëg sa kanamu borom bu la yàlla laajee ana lan moo tax nga voteel diw sàngam nga am loo ko wax préparel question préparel réponse ci question boobu bul dem yawmal qiyaamati bul jël sa kart di ko dugal ci biir urne bi fekk préparé wuloo question réponse ci question boobu parce que li ci aju ci ay conséquence mu bëri mais nag bu ñu xësee ba nag léegi nag kii wa fi ne fal nañ ko ñëpp topp ci ginnaaw waaw ñu ñëpp topp ci ginnaaw na ko ñëpp déggal lu mu wax na ko ñëpp def féeg diggaluñu lu xaram téere terewuñu loo xam ne farata bu ne woon bu leen julleeti ñu ne ñoo bañ bu leen woorati ñoo bañ jaay leen sàngara maa bañ ak yu mel non mais yi nga euh, classe, obligation la ci connais obligation Par farata la ci mu ko ci lan xew muy France muy Sénégal <laughs> muy Tunisie <laughs> Algérie Maroc <laughs> euh, lan xew li xew dañuy fal nit ñi topp seen ginnaaw nag di coow rek dootu ñu leen déggalati du ñu wax ñu def bu ñu tëralee projet sax ñuy ñaan yàlla bu mu yegg yàlla bu mu réussir et cetera am naa ñu ma ko nettali fii mës naa toog ak benn am ku ma toogal ku mag la sax mag la ñu wane Sarkozy ci télé bi mu ne kii daal yàlla na yaakaaram tas ma ne ko defal attention ci li ngay wax parce que bu yaakaaram taxé sa yaakaar yow day tass est-ce que mom bu yaakaaram taxé yow sa bos dana tass parce que yow bokkuloo sax ci ñinga xamné mën nañu xogalé pour seen bop wala mën nañu génne <laughs> ah oui faut faire attention ci li ñuy ñaan lan la ñu ñeur mëna ñaanal moy yàlla na leen yalla tek ci yoon bu baax bi lolu c'est devoir ñu leen koy ñaanal ñi nga xam ñoy jité jiite moo xam jullit ñi seen réew lañ ne wa réew boo xam ne jullit ñi ñoo ko nekk wala feneen ñii jiite nit ñi li ñu war a def ñun mooy suñu jullee bu ñu leen fàtte ci ñaan yàlla yàlla def ba li ñu maanaam ba ñu tegu ci yoon bi au moins yow jàpp nga ni teguwuñ ci yoon bi mais ñaanal leen ñu tegu ci moo gën nga leen di ñaanal bu yàlla bu seen i mbir àndu leen ñaanal mbir yi di tegu ñuy tegu ci yoon bi nañ leen ñaanal seen priorité nekk population bi yooyu nañ koy nañ leen koy ñaanal mais pas di di di di di ñaan muy bañ mbir seen mbir di bañ a dox ak di leen ro di di di leen galgal ah ak eh, di di di ni la eh, bâton sous la roue lañ koy xaw ma waaw di def loolu parce loolu suñ ko defee problème bi njëkk am du ñoom de parce ñoom seen position bi ñu nekkee permettre na leen seeni affaire di dox même bu di hein ah. mais ñun lo problème bi njëkk am ñun lo ñun ñoo njëkk am problème ñun ba peuple motax tax bu mak la xadis bobu non bokk na ci li ci gën euh, euh par contre rek mu am beneen sens bo xamantene sens bobu ahlu tasawuf ñom ñokoy koy pratiquer mooy <clears throat> ñoom maanaam mooy nitu nit nit ñi nga xamantene dañoo euh, dañuy dund maanaam euh, seen spiritualité ñooñu dañuy gis nitu yàlla ñu dem jaayanteek moom ne yàlla man xam naa ni kii ku baax la ku ko topp dina la mëne ba ci yow jaayante naa ak moom ngir yow ngir yow bu ma digalee ma topp ci comme li El Hadj wax waaw del di toppal xaw ma ci lim lay diggal wa cetera waa ma naka la ko sax sa euh, euh, wa euh, ju bax naka am am num ko waxe fatena num ko waxe mom la si bo boo ci nga set ci wa waaju la doy nga toppi chartam ya andak mom ci tijaan bu fekente ne da nga ni dama jël tariqa bi mo xam benen tariqa bu meuna doon wala nga dem gis nit yalla bo xamanteni xam nga ni ki mom yàlla may na ko ci wàllu xam-xamu zahir ak baatin gis nga ci moom jikko yoo xamante ne boo ko toppee mu fexe ba nga topp yenent bi sallallahu alayhi wasallam sans demal nag nga topp ci ginnaawam nga jaayante ak moom bu boobaa dina la permettre ba booy dee doo dee ci ignorance qad aflaha alladhi baaya'a al awliyaa حمدي مثل الذي بايع الاولياء اراجي مالك رضي الله عنه ننا دغ دغ تخنا كيب كو جايانتك نيت يالله كيم نيغا خامني نونو لا كي جايانتي اك يننتي تخي باسكو لام ولي نيوم نيو دونا جننتي والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه moy dernière question bi waaw inshallah fekkee ni xool nga actualité par rapport li mën a wax ni nañ war a toppee njiit yi est-ce que ñun bu ñu àggee par exemple ci léegi xam nga yàlla dafa ci alquran inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit ñi bu ñu tolloo fenn am désir de changement ndax amuñu droit manifester parce que dañu war a topp waa ji obligatoirement wala bopp changement bi naka dañ koy exercer bu fekkente ne xam nga ne élection boo amee ak loo mën a voté voté waa ji moom day lubal carte bi daal di fi toogal fala budda léegi kooku naka la ñuy ndax population am na fu wala boobu amul droit euh, <coughs> li nga xamante ne moom la texte alquran ak sunna yi tegtale rawatina texte sunna yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa xoolal xadiisu Arbaad ibnu Saari radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo waa waaraate boo xamante ne dafa tar ñun ñëpp a jooy keroog. Hmm. mu ne yenent bi sallallahu alayhi ñu ne ko dafa mel ni ka annahu walla wala mawizatu wida dafa mel ni waaraate bi dangay ngay tàggoo mu ne ko mu ne ñu ne lan nga ñuy digal mu ne leen aleykum bil amri wala ah wa taa wala ko bil bi samay astaghfirullah aleykum bi samay wa walaw yu walla aleykum abdan habashiya digal naa leen ci ngeen di dégg ak topp loolu rek laa leen digal dégg leen topp leen donte kii seen kilifa ak jaam la boo xam ne Éthiopie la dëkk jaam la xam nga déjà pour nga condition pour nga mën a nekk président mooy nga nekk gor doo nekk esclave mais waa ji moom esclave la ñu ne ñu ñëw ne koy mooy seen président beneen bi mooy xabashi la éthiopien la éthiopien ci jamono jooju ñoom du doon ay Quraysh te comme niñ ko waxee sànq imaam yi ci Quraysh lañ Quraysh lañ war a génne maanaam mooy lan mooy même bu fekkente ne moom amul droit exercer pouvoir bi mais moo yor pouvoir bi topp leen ci ginnaaw xadis parce que ah, ah, ah, am na beneen xadis bu sa bu nekk ci sa saxiix imaam al Buxaari rahimahullah mooy ci fitan yii la xadis bu kitaabu fitan Saad ibn eh, eh, eh, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni yow boo leen demoon ba kilifa yi doy waar noo leen di def mu ne ko loo may digal mu ne ko ngay xanaa ngay julli bu fekkente ne mu munoo ludul ñoom comme par exemple dañuy yéex seen julli ba waxtu yi génn jullil sa kër mais après nga terewul nga dem julli ci seen ginnaaw ñoom mu ne ko. ci beneen ci ci ci ci ci ci ci beneen xadis bi mu ne ko waaw su fekkente ne nag su fekkente ne nag man moom daf ma daf may yilif daf may yilif mais daf may tooñ day nangu sama alal mu ne ko alayka bi sam'i wa ta'a walaw darabaka wa zalamaka wa axada maalaka moo tax Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu bi ñu ko laajee question bi dañu même question bi exactement laaj naa ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne même buñ la de walaw darabaka même bu la dee dóor waaw voilà maka mi ngi lay tooñ wa axada maalaka mi ngi nangu sa toppal déglu te topp loolu laa lu digal yàlla nag du changer nit mais xam nga li ngay wax ni hmm. est-ce xam nga ni xewoon na Turquie hmm. bi fa ci gën a saay saay ci vingtième siècle bi ñëwee li ci yéeme rek mooy Moustapha la tudd moo ci doy waar ki gën a saay saay ci ñii mës a jaar ci vingtième siècle bi mooy waajooju bi mu ñëwee changé lépp te empire ottoman moo fa nekkoon maanaam l'islam moo doon dominé foofu mu ñëw changé ko dem na bay noddloo gaa yi ne leen dootoo leen waxati eh, eh, eh, arab noddoo too leen ci arab dem na ba xam nga euh, lettres yi en arabe lañ daan bindee ñoom parce que def toute façon moo gën a dëppoog seen làkk mu changé ko indi lettre latine euh, latine yi maanaam dindi waaw jigéen ñi dootuñu voilé woo ci ëcc dindi leen et cetera mais lu ne def na ko ci change mais lan lan moo xew est-ce que waa turc exemple lañ ci loolu lan lañ def moy dañoo def li yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam defoon bi mu nekkee Makka lan la yonent bi defoon bi mu nekkee Makka dafa créer luñu wax darul arqam man fokk ñu jàng siire yonent bi sallallahu dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko xamé daf ñuy permettre situation buñ mëna mën dund ñu xol par rapport ak jamono jooju nan la def xamal lu mu def dafa créer luñu wax darul arqam moy la parce que al arqam ibn Abi al-Arqam déjà 17 ans la amoon radiyallahu anhu 17 ans la amoon. kenn doonul xalaat ne gaa yi dinañ daje foofu mu fexe ba gaa yi di daje foofu ñu jàng alquran mu leen di jàngal lan la ñu ñu ñu wéetale seen borom mu leen di jàngal seen diine gaa yi ba diine sax ci ñoom ñuy màgg noonu ba contaminé ñëpp population bi yëpp ñu mujj leen contaminé affaire bi foofu lay déparé bu ñu bëggee affaire yi changé xam nga nan la def ci suuf lañuy ñuy tàmbale bas peuple d'ici cinquante ans mbir yi du changé xam nañ ko ñun xam nañ loolu xam nañ ni di six affaire du change mais buñ bëggé <laughs> bi change nan lañuy def nan lañuy def nañu fexé nañ tambali ci suñu doom yi xalé yi nañ tambali ci ñoom nit ki li Hasan al-Banna ba sa kër parce que bu leen di kaas république islamique lañ soxla non gars yi dañu war dañoo waroon a def Sénégal république islamique lii c'est pas normal mais ban sénégalais moo pare pour Sénégal ñu tere fa yi ñu ñu ne musique dootul teeñati ci télé bi film yi ñu ko tegati ci télé bi ban sénégalais moo pare pour loolu. Euh, euh, euh, dégg nga jigéen ñi dootuñu génnati di te muuruwul sàngara kenn doot ko fa jaayati ah. ont arrêté euh, euh, euh, heure julli bu dañuy nodd arrêté dem ji ñu wax Sénégal pour yoy pour pour changement yu yu révolutionnaire kan mo paré mbir du problème bi xam nga lan la yow ba d'abord république islamique sa kër bu ma ko defee nga def ko kii def ko kee def ko kee def ko bu yàggee léegi ñu am république islamique loolu mooy li nga xamante ne loolu <laughs> la ñu mën a def mais pas di jóg naan dañuy révolutionné wu parce que loolu problème rek lay indi mësul indi yiw problème rek la mësul indi. dans tous les cas chaque chaque peuple a les dirigeants voilà loolu tamit am na. aay bi foofu lay voilà aay bi tamit foofu lay amee sens. yow pat. yaa waa Turquie ah.